gëmuñ ki keneen ka nga àndal te yoo xam naa ne toppoo keneen da nga ànd ak ñoom seen doole yow da nga nangu ëllëg suba ñu tooyewu ne ah Ahmed bi ñu waxtaanee yow de da nga dañ bëgg ngeen jàppale ko def boo ko defee ñu nga àndal duñ laa topp ngir yow nga falu pas pour folli keneen fal n'importe qui xool xool ay temps ay jàpp ma da ngay coalition boobu ñaar fukki wala fanweeri nit mais boo ci génne ñaaw la jët amu ci kenn koo xam ne nii mën nga koo dëkkal ci benn commune du Sénégal boo xam ne yow leer na lañ mën na faa gañe wala bu ñuy lim ñett ñoo fa gën a fës ci njëriñ ak doole bokk na ca. tur rek xam nga tur rangale ay tur yu amul base amuñ mbooloo mosuñoo falu fenn mosuñ am doole fenn juróomi at yi amul leen lu ñu fa def lu ñu leen joxoñee ci ngërmande ak seede bu rafet. nga foog ne tur yi boo leen boole mënuñoo gañe mais ñaata commune du Sénégal. la ñoo am yoo xam ne bu ñu fa demee ci élection révision liste yi mais benn parti seen coalition yi taxawu fa. benn ñaareel mooy. mais ña fa nekk boo xoolee mais parti commune yu bëri amuñ amuñ amuñ. ay représentant léegi bu bu euh, coalition PDS bi nag. non xam nga xam nga coalition man nag Abdoulaye Wade lu mu bokk du ma ci wax dama ciy maandu Abdoulaye Wade mooy sama sëriñ mooy sama lépp lu mu def baax na lu mu bëgg a def baax na lu mu xalaat baax na. mais taxul <laughs> taxul nga dem bokk ko de. <laughs> mais taxul nga bokk ko mais loolu waxin la loolu waxin la rek waxin la rek en fait loolu waxin la parce que. man sama cër mooy wax seede Abdoulaye Wade lu rafet. Mm. loolu la ma def waaye nag bu loolu yëpp passé nag nag ñu wax nag yàlla dëgg la bëgg yàlla dëgg la bëgg man xamal ba yéem man li ma ci yéem mu ak ñu àndoon tasaaroo xiiroo ŋaayoo ci diggante bi juboo gu gu ñu fësal jiguñ ko cël ñu àndaat encore te ñoo boo jox xoolee lim yu baree baree baree bari. ku mel na la ñoom Abdoul Mbaye mais lim yu baree baree bari ma ma maa xool benn xam nga man nga ne ku mel ni. ku mel ni ñoom Abdoul Mbaye. mais xam nga par exemple euh, premier ministre Abdoul Mbaye man amoon problème ak moom. waaw ah. mosuñu daje mosuñu joxante loxo. waaye ba mu defee déclaration politique générale lam ñuy damay jël kii di ko xool lam yekk Abdoulaye Wade ak ay ministre am. te man ba ci dafa ëppoon dama ne tànk nu wax ju leeralu ko génnaat ci nangu ne dafa juumoon wala wax na lu ëpp wala dañ koo naxoon. ay ñoom ñoo man dama jàpp ne waruñ ànd ci. lenn parce que xam nga sëñ bi na ñu la bënte kooku dafa ñëw yàqati suñu der jéem lu nekk taxal ci lu nekk lu bëggoon bëggoon lu neex ka ko tànnoon muy Macky Sall. kooku bu taxawaatee tey jii. ànd ak président Ablaye Wade. mais loolu la ma ko lal kon dafa soppeeku wala daa jàpp ne dafa juumoon ki gën ci njiit di politique Ablaye Wade la il faut mu wax Sénégal yu leer. dama jàpp ne ànd naxante yooyu wala ànd ngir xeex wujj buñ bokk loolu politique taxu koo coalition bu mujj bi di coalition gëm sa bopp comme li nga wax waa ji nee na duñ ko yóbbaale couleur yi d'accord yi signé na sous réserve léegi beroo na yor na coalition am ah, na kooku yéen a xaw nuroo sax ah, jumtuwaayu xarale yi waaye comme que politique da cee gan gan gan gu ci bees la te xam nga nag taa yi toll riiw yu bëri ngi am fàq topp ay nit ngir bëgg a làqatu ci yow ci li nga yor te yoruñ ko te xëy na gëm mën na ko lal bañ a gëm mën na ko lal sàmm sa intérêt mën na ko lal bu wote yi paasee bañ pare ba ñu xool résultat yi ba xool ña des ak moom wala ñu ñëw nag mbubboo ko pour falu continuer dem di wéy jël seen wéy seen yoon ci lay door a xam taxawaayam ci réew mi ci politique bi naka la toll parce que nag man nattukaay politique moom koy nattee nit ki jaar-jaar xam-xam bu ñuy coow parce que Sénégal ñu ko jiite yëpp ay borom xam-xam lañ muy Senghor muy Abdou Diouf muy Abdoulaye Wade ki ci mujj sax bu toll ñoom ci xam-xam aussi am na jaar am na jaar-jaar xam nga loolu. kon jërëjëf kon monsieur le ministre ñu ngi lay sant jërëjëf. Cheikh Ahmed maa ngi lay gëm la sant. gàtt na mais neex na te am na solo am na solo ndaxte yow moom. merci say mbir day daal di euh, am solo toujours. di la ñaanal aussi ci li bokk. yàlla yombalal la ko. te bul nangoo seey ci lenn loo xam ne nii day suul sa jëf sa yéene wala tas yaakaar bu ñu nga àndal. jërëjëf bërki démb ci ay rek nañ ànd folli vidéo. jërëjëf il faut mu ñaanal ma nag parce que nekkoon na sama.